بنظرة تأتي لنا waa ndar ñu leen di nuyu laa demoon samedi daje ci jal bu am mini bi am fii daal ci décembre loolu ñu adressé ci seen kilifa Abdou na ma ñaan ma dem fa ñaari fan la mais fan bu njëkk bi buñ ubbee ma defal leen conférence c'est la seule ci bés boobu ci personnalité Cheikh Ahmed Tidiane ma dem ànd ak Moustapha mi ak euh, Birame ba léegi ñu ngi téléphone bon mu ne euh, maanaam xadiisu juróom ñaareel bi من كودس من كرواية كيلو أجوتي لاي بير أج لاي انتبير عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته حديثنا نقبه ورورت جساني لبق خارج هذا فتاة لإخوائهم أيوه من دفنه صلونا جليكي أبو رقيته kooku mooy kunya turam moo doon tamim moom nga dégg mu siiw tamimul daari ku bari ay am ndax ay xabaar yu tumaraanke yoo xam ne moo ko moo ko solo ndax dafa nekkoon ci diine nasaara après ñëw tuub eh, amoon na ay seetlu yu bari yu muy seetlu ku ku am xel la daal mu ne te tamimul daar yi moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa wax ne kon nag moom raawi mubashir la mel ni rek euh, ngóor si toogoon rek ne bàyyi na la nga xam moo gën a direct waaye nag foog ñu seet waa ji ba xam ndax war naa mën a toog ak bàyyi na ci jamono walla ci na ci condition te lii nag ku ne xam na ne ba mu tuubee bokkoon na ci ñu daan jege yonent bi sax mos na commenté euh, lu lu mu waxoon ci benn waay yonent kontaan ci lool dinañ ci mos ñëw mu ne dégg na yonent bi mu naan ad diinu lislaam day an nasihatu mooy laaye biir xam nga loolu mooy jël na diine tënku ko ci mel ni benn baat mais baat bi nag moo yaatu ad diinu an nasihatu xam nga yonent alayhi wax na ci aj alxajju arafa fuqaaw yi ne mooy wane ne rukunu bi nga xam ne bu la rawee ci aj déwén rek xanaa nga dabaatal ko te itam aj eh, arafa dafa am ay ngëneel yoo xam ne ngëneel yi bëri nañ ci diine waaye moom itam am na ay xususiyaatam waaw mbaay sax dafa daan wàccee ba nit ñi koy déglu ñëpp mun koo mun koo mun koo xelu mun koo dégg di wax ne dafa ne lu yéemu la ne buur yeeg njiit yëpp bu ñuy invité nii dañ koy invité fa gën a dund fañ gën a préparé gën koo tabax yàlla nag soppee yi ci ab àll leen indi ab àll muy Arafat dafa ne dëkk benn bés la dëkk bu abrité ay million benn bés su nga ne mu tas bàyyi sëriñ bàyyi ñës nga xam ne boroom xam-xam la hakim la aarif bu jéggi la dañoo nekk minan ci aj goo xam ne boobu daal yi fi yombawul ñëpp nekk benn tànt noonu ci deuxième jour ba léegi tàng te mu ne ay ah, eh, dégg naa nag aj dégg naa ma ne ah, <laughs> mu ne waaw yàlla lu mu jublu ci aj maa dégg naa ko rek ma ne ko ah, mu ne mu def bëgg ñu yëg toroxte gi rek ma ne ko ah bon na nga gi bon naan yëg mu ne ad diinu kon an nasihatu comme nag loolu yonent moo ko mun a firi saa bay te luy xamut dañ koy laaj luñ leen laaj itam ñu delloo ko yonent bi bu dee diine lu mu di noonu rek mu ne ñu ne qul naa liman diine mooy laay biir laay biir kan mu ne lillaahi laay biir yàlla wala laay biir ngir yàlla wali kitaab yi ak laay biir téere yàlla bi wali rasuul yi ak laay biir yonent bi yàlla bi Muhammad ibn Abdallah ibn Abdul Muttalib wali aimati muslimin ak sax njiitu jullit ñi njiit dina doon njiit ci lii mbaa ci lii mbaa ci laa mais nag bu ñu ko waxee moom war a sut anbiya yi ñoo ci jiitu mooy ulama wu ulama ul aamiluun wa amatim ak sax euh, ñi ci des ndaxte amma yaumu umuman mooy masale na généralisé la kon nag bu ñu waxee yàlla wax téere bi wax yonent bi wax euh, ayimma yi kon nag mu des les autres les communs des mortels ñëpp am nañ wàll ci laay bi eh, kon nag nasihatu buntu la boo xam ne moom xaju fit parce que itam l'islam yëpp buñ ko tënkee ci benn baat baat boobu xam nga laaj la diin ay mos ci tuuti rek eh, ma l'islam nag sa wax mooy addiinu diine ndox ndox fa yàlla moo ne woon inna diina inda allahi al islaamu diine ji yàllay nangu di ko accepté muy diine yi xalam mooy diine jébbalul yàlla canam ku firi hadis jibril romboon ngeen ko waaw laay biir yàlla nag mu ne maanaam lu xaw a niru daal la waajo waxoon xaritam ba dimbale ma ci nit ñi lu ko ah ma ne ko fu ma la tàgg rek ñëpp noppi baax na ci man waaye dimbale ma ci nit ñi la fu ma la bàkkee rek kenn du ma waaw yàlla nag dafay dafay jëmbi yërmaane bëgg laa yërëm tëralal la mboolem wasaayil yi nga war a jaar ci succès ak texe àddina àlaxira waaye nag defal dara nag tegal na lekk bi gannaaw boo jàmbatee nangu la lekk nag xanaa xanaa da jàmbat tawat ligg garab am na fajkat am nangu la faj nag xanaa au moins indi na ab yonent te xam naa ne ak yonent bu dowutoon ak yàlla lu compliqué la war a doon parce que nit ni mel nga war a indi nit ku parfait ci sens moom yëpp ba mu nekk ci service u ki imparfait ci sens moom yëpp te te dana sotti yëfi dana sotti xam nga loolu itam waaye nag dafa soxla yow itam nga dem ci xadis ba taaraf ila allahi fi raxaa'i yaarifka fi shidda bi fexe ba yàlla xàmbe la la ba muy neex su naqaree booy na yaa rabbi rek xàmbe nañ la kon nag Euh, euh, laay biir yàlla yàlla du koo xam ne benn solution daf koy jaaxal ndax dara jaaxalu ko euh, nga war koo laay biir ku ne xam ne ne baat bu jibee la jaadu rek lañ koy fini waaw moo tax bi ulamaawu tawxid xoolee usuli diin wax ma usul fiq diin dañ ne fu yàlla tudd ñaari loxo wala xadis tudd yàlla teg tànkam ba dëggoom ba wala wala wala da ngay xam ne rek nag doo ko mën a firi comme loxo yi nga xam moo tax ñu ne taawil mënta ñàkk ci ci tawxiid am nag ñu bañ te loolu indi na problème mu credo yu bari ci mbooloo jullit ñi istawa alal arsh yi mooy dafa toog kenn ki wax ne teg tànk ci kaw comme ni nit ñi toogee rek moom kon nag laaye biir yàlla d'abord euh, te mi mu daar yi nii ñu ngi ko askan ci maamam waaw ci maam lañ ko askan xam nga amoon xaw ma da waa Paris sax xaw ma daal daar yi lañ ko askan bi bi lislaam ñëwee ba am juróom-ñeenti at juróom-ñeenteel ba ca la tuub nga xam ne kon yàggut ak yonent bi astafurlah astafurlah yàggut ak yonent mu door a gàddaay waaw am na daal mos na daal ñeenti ati màkka yu tàng jër loolu mun naa mun naa defar urus ba muy briller mm-hmm. waaye ña ko jiitu woon nag ñoo ñëw faraw mm-hmm. mm. Mm. ba yonentu toxoo moom tam dafa toxu jógee Medina dem Cham comme Bilal Bilal moom xam nañ li tax bu dem moom moom mënatu soo nekk fi mu nekkoon ak yonentu sans yonent moom mënatu ko mm. loolu taxul ma ñëw Dakar de ñoom dafa moom moom bañ rayee si na Ousmane rek xam ni fi commencé na jaxasu ba dem baytul maqdis fa la dëkkoo ku amoon diine la comme ni ñuy wax tey xam nga ku nekk julli rek xam nga am nga waaye nag xam nga ñun ci olof xam nga ci suñu réew bañ di ku am diine rek mooy ku fonk julli la waaw ku ibaadaar yi daal du ko sàggane dañ ko wax ci arab murte dëj yi noonu dañ ko wax dëj yi noonu dëj yi noonu ku bëri woon lu kon xam nga buñ ne ku am diine rek neex naa neex naa léegi-léegaan rek mu ne allahu akbar rek baqara rek ba wan naa si door ko ruko xam naa ci wesi njëriñ bàyyi nag ridwan raali sax na bu wéra wér moom sax wax na ma ko moom daaw ko naafila mais dafay commencé baqara rek di bàggante ci dëkk bu bëriwul coow amul ay rajo ki ay musique ki ay euh, rock and roll ak yu ma xam dégg ñëpp a ngi ci dal ñëpp di dégg baatam bi ak ni mu amee technique ba woon naa si rek ñu ci leen dafa ko def koy def pour bàyyam bàyyam bi ko jàngal ba mu mel noonu ci alxuraan loolu ko ba bis bu mujj ci dundam fàtti la waaw takat mhm. bul foog ne tamit dafay jàng-jàng yu gaaw noonu léeg-léeg mu wax benn aaya waxaat ko waxaat ko doro wi nga xam ne kon dafa boole tilaawa ak fahmoog diraaya yonent la ko roye léegi yonent léeg-léeg mu jàng lu bëri gu ko léeg mu nekk ci benn aay di ko baamu rek ko baamu rek waxam sax daf ko daan baamu am na sahabi yi bu doon wax dama ne ko ay dafa daan wax bu teey ku ko dégg mokkal ko te dafay répété jumla ji su ko waxee parce que dëgg gi mu doon jógee na waaw lu rëcc rëcc rek rëcc la eh, booba nag xaalis boo dégg ñu ne diw maanaam daal junne mu hmm, soo jënd bu bu ci junne junne lan nag laa xamoon rek mu ne di ko jullee ji juma te que ku dëddu àddina te yéen wax ne kenn ci yéen daal aayut mu am boog ñaari mbubb mbubbam pour mbubb ak mbubbam xew ak juma ñu néew ne te léegi moom day na waa ko ko am mbubb mu bees sol ko julli ñaar rakk dem ci ma nga amee woon njëkk moom mu saraxe ko lu bari la ci yàlla jox léegi gis naa yoo xam ne toog bu yëri yi sàppi rek ci seen armoire yi tellement que dafay bëgg yëpp jar naa corriger am nañu amul yére bitu waaw kon nag laaye biir yàlla xam nga nasihatu ci arab bi arab nekk classique bu ne nasaxa rajulu sawbahu moom lañuy wax ñun tey xasala sawbahu fóot sa bu ba ku njëkk nasaxa kon a nasihatu xaslu la maanaam setal kon nag mi ngi mel ni kuy bëgg waxee daal diine mi ngi commencé ci nga sellal sa digganteeg yàlla diggante yàlla lan la defal bul def benn alim bu mag firé defal bu ndax bu ne defal rek yow ki ki naan defal amul soxla ci dara ganiyun bi am an zaatihi waaw euh, may kon nag su njëriñ la wala su njëriñu kenn wala su njëriñu lenn wala njëriñu ñëpp bu ne bàyyil bàyyil نفيلون يلا حرام الدر لو أمجري لو أمجري بوير كيتم آيوكو مانا بوير بو موي بروبلم تغدين مصفى حيثما ثمت حيثما ثبتت المصلحة فثم شرع الله waxtu waree ba gis ne lii moom intérêt bu wér la pour yow wala pour nit ñi rek gëstul diine du ko bañ waaye nag maslaha charia ñoo tax ñuy wax fekkoon ne dafa am koo xam ne maslahaam tey mooy lim jënd ci am ñoll mënu koo màndi mu bugg intérêt la pour mu màndi nga dim la non non sauf bu yàlla buggee def kéemtaan te man dund naa ko <laughs> bi suma soxna faatoo ndey awa kenn ci mbokkam yi nga xam ne des nañ tuuti ci ak euh, ceddo kii yooyu dafa ñëw di jaale mën ma yow de am na lu xew mënoo ko wax ma ko jàmm mu ne dama mës a dajee yow ci mbedd ñaan la dara nga may ma waaye nag li may jaaxal mooy kuy may bu pare mel ni da nga ma xaw a jib ma ne ko de yaa c'est impression rek la lu xew man xam nga ni nit ku def dara yaa xam ni nga def xam nga kuy kuy ku xëy di yuuxu yaa xam ku dee mu ne ma déedéet boobu boo xamoon la ma doon doy xaalis ba xam naa doo ba ko jox ma ne ko lan la mu ne ma damaa naanoon te mu def te dese mandi mu ne ma gis la rek nga xaaral rek ma kii sañ baax mu ne nga may ma xaalis ma dem naan mu ne waaye xam nga kéemtaan gi mooy keroog laa gëj naan ba fi may taxaw sa fukki at dana koy xaw ma ca dara xaw ma ne da ngaa bëggoon a naan ñaanalu ma la dara billaay bu ma ci yiñ dara non parce que nit ñi dañ gaaw a xool yàlla na mu ko defee rek saa yu baax xam naa ne xam naa man fu ma jógee woon leer la comme ku laaye normal moom daf ciy jëriñu mi ku raxas fóot malaan mu am ciriñ ciriñ ba dem nga ko biir njuumte ga wala lor dem moo tax arab toujours c'est dañuy kii waaw gëm yàlla topp ko topp koo xam ne waxul topp ak ku ëpp comme abu israil mi yonentu seen mu nekk ci naaj wa taxaw coŋ-coŋe benn tànk ba or xam nga loolu ko may yàlla ñun seen lii lan la ñu ne moom de nee na dafa yéene or taxaw ci jant bi mooy déedéet or bi mu nee na taxaw ci na yow ci kër gi te na toog te continuer or parce que famille bi daal lu jafee déterminé la parce que waaye yooyu moo ko fental boppam waaye yonent dàqut yépp dàq na jant ba dàq na taxaw ga mais saxal na koram waaw Euh, laay biir alquran mooy nga xam ne alquran ni yàlla du morom bi dara moom itam du moromu benn wax gënatu ko alquran boo wax yàlla la mën nga wax sax li wér te ulamaa wu yëpp saxal ko mooy alquran melo yàlla la te itam li wér mooy ki ñu ko wàccee ci moom rek moo ko attan bu jógee ci kaw diir ji bees ku ma ku boo ko jëloon mu lakk li ciy tegtal moo yàlla ne law anzalna hada alqurana ala jabalin lu mu rëy rëy la raaytahu xaashian mutasaddian min xashatillah nit a fi nekk di werante nii laa du mais bu yàlla wàccoon alquran ci doj ci ab montagne nay Kilimanjaro montagne mi nga xam moom dëgërul bopp duggagul ci moo yàlla moom boobu mu koy wàcce mu yàlla ne da ngay gis montagne ba mu ne xob tiit wala sax mu explosé mu yàlla na damay def misaal yooyu pour nit ñi dégg ko ndax ñu xalaat nag réfléchir misaal ma mooy dangay ngay gis yonent yàlla wax ci waxtu sedd xadis yi nee wax yu day wàcc ñu ñaan li daaru moom muy ñàkk dafay wat ci gëléemam gëléem gëléem yim yu mag la gëléem yi mbiy yooyu gëléem macha allah xëtba hmm? euh, mais gëléem gi du ko attan poids am bi poids maanaa bi mooy mujj sa fekk poids physique gëléem gi day góor mais moom attan na ko yàlla ko dëgëral dëgëral boo xam ne bettul kenn ndax sax na ci riwaaya ne doole yi juróom-ñaar fukki genome yu wér la am moo tax mu ne bu ko yàlla yi su amee migraine migraine doublé lay am uuaku kama yuaku rajulaani minkum booy si biru yonentu deux fois lay si biru bañ xiifee fu la takk aw xeer ca biir bi pour mun koo bësaale ñu ñëw di ko tawatal foog ne moom moo leen tane bañ tekkee ku ne aw xeer daanu yonent tekki ñaari xeer daanu lépp moo ci gën a mat nit ñi ba bu ko yàlla natt waaw kon nag laay biir yonent du dara lu mooy laay biir alxuraan mooy gëm alxuraan fonk ko ndax alxuraan mooy màgg màgg googu te itam mooy dustuur bi discours bu ne danañ ko retouché discours mooy constitution léeg-léeg ñu nettoyé ko léeg-léeg ñu seetaan ko léeg-léeg ñu seetaan ko léeg-léeg ñu révisé ko sauf alquran laa yati l batilu min bayni yadihi wala min xalfihi tanzilu min hakimin hamid alquran dinaa keroog ci rajo dunia maa ngi ko doon télévision dunia maa ngi ko doon seetaan benn waaye bu sant gars yi dëkk Louga yàlla may na ko tawfiq den waaye beneen boo xam ne daf doon weddi ne kenn du jàng alquran may yool ba ku biddaa la yàlla du ko nangu mu ne képp ku sos ci mbir mi lu ci bokkul foofu war a doon ñëwaat waaye nag xam ngeen ne ci saasi rek yàlla day dal di nit suy def muanada mun na ko loo ci làmmiñam lu ko weddi moom benn misaal mu dafa am ñu daan jëm tariqa tijaaniya ca début siècle bi ci wetu gànnaar gii na naan tariqa bi day tax a ñàkk waaye ba mu ñamante ma ñoom tijaan yi nag ñoom ñoom ñoom ci dem màkk lañu dëkk aj daf leen a yomb ah aj daf leen yomb mu bu doon ñu ngi aj sax bay waaj a tos ko rek nga ne leen yomb kooku mooy li wér nag mooy ab tijaan du lu mooy jullit buy jéem a avancer vers la perfection képp te bu xasee dëggu nag bëgg na am mais bañul ñàkk parce que li yàlla bëgg la bëgg parce que waaye am na amee ci fitna bu dul jeex ci àddina loolu nga gis ki ma gis keroog ma ngi tumpang tumpang yi mel ni day xotti suuf si te boo demee sax mënut a jàng julli ma gis koo xam ne ma nga ñàkk tellement que dal day nelaw ba buñ ko eewul du julli fa def kenn que di pikiru te du nelaw moo am ak ñàkk du suñu affaire benn yan nañ am waaw gëm ko de bépp nasiyaat bu ñu wax nag ci xadis bi boo ko seetee nit boppam lay laay biir rek nasiyaat yàlla pour sa bopp la nasihatu alquran pour sa bopp la alquran moom dafa ñëw kaamil bañ nañ ko ñun kaamil la ñuy toujours di dara wàññeeku ci ci yow la yow yaay fexe ba conforme am conformité moom waa ji nag ne alquran te doo ko jàng saa bi dañ ko wàññi na ko déedéet saa bi kay daanaka moo ne ku ku ngeen gis ci nit koo xam ne dee na wala mu wàññi jàng leen yaasin toog sa moom ñu nañuy dégg nañ jàng saar sangam loolu awaaxiru sotti sangam Euh, Abdullah ibn Omar daf daan gis waa juy jàng alquran mu ne rek benn waay dem ko seetlu si waaj wàcc rek yëgal ma ko Abdullah bi nga xam ne Omar a ko jur kimtaanu duniya Abdullah sax kimtaanu duniya la moom hmm. su bu ñëwee ne ko waa ji dina dina wasal tey de rek mu indi njaboot di toog su waa ji wasalee ñu ñaan moom ki yonent ya alquran dañ bugg a wax ne maanaam ab loi rek la ay loi dëgg la loi la mais barke la barke la léeg-léeg nga gis nit dem ci sa tur ndox soxla mu sotti su fekkee boo seetee doo dara soxla waaw waxu yàlla du am ko man nag ma ji téléphone bi vingt minutes mënu jot jaay xam nga loolu bëggoon wax ne leen dama bëggoon a participer rek ci ndax alxuraan mun nañ ko mayeen dégg comme ni muy wax toujours ma ne yonent bi comme def ne فجاني القرآن خرج من أمغتة فكية أمغتة فكية ولا بني ولا بني مجبلة بفكو بني أليف لاميم أم فنوريو كم من فله أم نجا نيت أم كم غا أم ما تيزوري سينغو تيزوري يا كم خنا لدي مم كم نكمة جلو سك سبكون أجنبي بري ما تقولك مقدمة بواجه دفنك bokk waa waajee nañ commencé mën na ko wax xaar damay def benn muqaddima diine bi ngam jàmm yàlla bi ñu ko defee ci nangam loolu loolu mun naa koo wax téere ba mu ko jëlee muqaddima muqaddima téere yooyu nga xam ne tawxiid benn kii rek la loo ci loo waaw loo wax rek ñu ne bokku ci te léegi ñu aay dara lu yonent saxal léegi ñu dàq dara lu alquran saxal léegi ñu dàq dara loo xam ne saaba yi dañ ci daan xëccoo ñoom ngir bëgg koo def loolu day na moo tax ma di ko souligner parce que itam comme réew mi wax dëgg yàlla dafa bëri ay pànk te ñi ko wax yëpp ñoo niroo nu ñuy solo kon nag fii amoon na ci réew mi ñoo xam ne su mos ko sëqatee rek ñu fer foo woon ne impérialisme mi ñu lëjël ci Afrique solution mooy marxisme léninisme ñu dem ba ci kanam ñu xam ne yëf du doon bu njëkk dañu foogoon ne foo dégg buur réactionnaire la empereur rawatina foo dégg président ci benn république mooy progrès nekk yëf yi du noonu adresse yi baax waaye nag nit ñi ëpp solo sinon Japon tardewul kay te empereur la ñam Angleterre buur la ñam buur bu jigéen si yëpp yaa ngi ci bopp léegi daal ñooñu ñu ngi fi def ngeen bàyyi leen xel <coughs> hmm. nit ay matu muslimee na ñu ci jublu maanaam ku ñu jox responsabilité jullit buy àtte amir sultaan mali lu mu di doon ba tey jullit buy àtte nekk sax président wala lu mu di doon bu dee jullit buy àtte te jëriñ nit ñi te maandu cële cële ban war nga ko laay biir maanaam war nga respecté la muy def fekkee da jaayante nga sàmm ko buñ juumee te mën caa wax dara te euh, te ay wu ko gën a mag bu ci jógee nga wax leen ku la jiite te jullit war nga koy ñaanal tawfiix parce que tawfiix xam du moom rek tawfiixu ñëpp la imam ahmad ibnu hambal jëbalu sunna la ko gaa ñuy dàq làqbale nee na su ko yàlla xamaloon ne benn ñaan la am buy nangu du ko ñaanal boppam daf ko ñaanal amirul muminin maanaam parce que te ilif réew ma su mbir su gaalal suuxee du baax ci kenn kooku itam nga ko dimbale moom itam ci nit ñi ci yàlla kon ñu koy ñaanal moom itam parce benn mag nekkoon na tënk di wax benn sëtam daan ko doom ku ñëpp di ñaanal fexeel ba dëkkee laab c'est façon de parler ma waaw ñu ne nag wax deug yalla ay immatu muslimin ko solo wax sax pour nga li nga wara war yonent ko wax waye nak mu ne bu ni nit la koo xam ah, manam mm, lañ ko lañ ko lañ jaayante ak mom daf ko wul ah boo dara itam kay bu ko ñaan ndax dang fay da yefi day gëna en venir ah. comme kay dañ ko ki pour mu defal defal suuf wala boog ma nga yàq bu ko ñaanal mi ngi mel ni ku naan yàlla na ko dolli mën a yàq boo ko ñaanul yàlla itam ñaar yàlla na ko yàlla jubal am na ku ne ma man di am na ñoo xam ne buñ ma weexaloon benn waay de xam nga yëpp kon ngay dégg ni ñi seen expérience parce que itam yéen ñëpp ay sëriñ la <laughs> waxuma sëriñ tareex de sëriñ la ku gëm ne yàlla war naa nangu ñaan tout ça waaye man da avec pas passion bi ñëw xam ne buñ ma ñaan lool damay jël xaalis ba pare le yàlla yàlla na leen baal te may leen sutura lu ma leen ñaanal lañ lañuy sàkku parce que buñ ko gën a amee rek day gën a sonal nit ñi waaye nag ku am sutura am yàlla baal say bàkkaar itam la nga joxe ci xaalis tam man ah, ko ah saa fay ma man waxu ko daa ngi ñu ne ay mbatul li ma wax la sax buur yi waaye itam kenn mënu ci génne ulama u muslimin ulama muslimin nag ñoom lépp loo leen may ci sentiment lépp loo leen may ci ñaan lépp loo may ci soutien yàlloo nañ ndaxte ca dëkk arab yi sax koo gis yu ne aalim la xamal ne lu mbur daj ca taal daj na ko waxantuma nag Afrique hmm? waxantuma Afrique kon nag ñooñu ñoom amul benn ci ñoom nit war na laay biir nangu itam ñu laay la biir hmm. am na aalim boo xam ne lam jàng lam bëri bari ak lam nekk nekk euh, saalixu yàlla daf ko nattu mënta résister sabru mi mu jàngal yépp fàtte na ko sax jabaram ju baax moo gaañu lool mu ba jàngale ay fan ñu wax nawleen yi ñëpp ñëw di ko fàttali tëj benn su ndaw su kii ne ko ne man dinaa ko waar de yow mu ne man nañ dem sëñ bi salaamaaleykum ko ah xam naa ne tiis nga nekk de waaye nag man di suma masula mi yow rekk laa ci óolu yow laay laaj xam nga jam na ko kuñ laaj xam-xam te boo ko xamee te tontu ko dafa am tëkku ni ko lan la mu na ko man dama am xarit bu jigéen boo xam ne daf ma abaloon ay takkaayu urusam toog rek di ko jël si ne naa ko delloo nu ma war a def nu war ko mu ne ko takkaay yi dafa rafet rafet boo xam ne boo gis mu ne loolu moo tax ngor ko delloo te gërëm ko su mu ne ko dafa yàgg ci man de mu ne ko loolu dafa doolee tax nag ngor ko ko jox daaw mu na ko sëriñ te loolu la mu ne mu ne ko loolu moo la dal te jabar ji yàlla moo la ko may def ko ni mu ko def jël ko ci coobareem rek nga bugg a tukkal bu dem jàpp ooti jàng nasiixatu moom lu baax la soo yem tay nag xam nga doole ñemee nasiixatu bokk na ci li ñuy laaye biir aalim rafet njort ci moom rafet njort ci moom te itam rafet njort mutlaqan sax ci nasiixa la bokk parce nit dana gaawantu jugé xool li nga xam rek ni mu jafee ci yow li nga xam benn waaye laa gis kuy yéeg foog na ngóor la mooy dafa toog ci benn chaise toog ci chaise bi xam nga ni mi ngi janoo benn kër am na kër yu rëy soxla soo xam ne ma ngay tànn ceebam yow loo koy xoolee mu ne ma toog noonu rek am ku ñëw nuyoo rek mu ànd ma dugg ci biir néeg am ku xam nga seetal nañ ko ni mu ne ñu toog yàgg ci biir la ma ne àddina tukki na de ah àddina daw na tukki mu ne ma dem ba ba mer bay waaj dem mu ne rek waa duggoon génn ànd ak soxna si ak jëkkëram waaw nit ku càmmiñam seet fekk jëkkëram ci biir néeg moom muy tànn be yow lu ci sa yoon mu ne xaw naa fuuti ma ne ko fuuti ba pare moo tax euh, dafa ànd ak itam rafet njort hadis la bu mag nag moom mun nañ ci ñëw beneen bés moom lu yéeme la alhamdulillah laay biir euh, euh, laay biir euh, aymatu muslimina amatu naasi nag moom nit ku nekk comme jullit dafa war a jàppee boppam jàppee mbokkam ni mu jàppee boppam yéene mbokkam mbokkam jullitam lim yéene boppam ndax yonent ne la gëm guñ mun a limoo kenn du kenn du ci egg xatta ba li axiihi ay li axiihi muslim maa yuhibbu li nafsi te loolu léeg-léeg am ñu ko fàtte ku bëgg a dem Maroc jigéen ji bëgg a commencé commerce comme ñoom diw gis kenn ku yàgg dem mu laaj ko yëf yi mu jox ko ak mu jox ko mu mis gaay bi ko fa ñuy dem ak fam baaxee wax ko wax ko fee mu yàq xaalis yooyu yàqu loolu rafetul loolu moo tax baaxut kon nag àmmatu naa si mooy ñun ñëpp rek waaw da nga koy bëggal li nga bëggal si bopp am na ay xaq yonent ko wax mooy bu la laa ñaan bu la laajee sa avis bu nga laaj ko benn nga wax ko avis bu wér su feebaree nga seeti ko soo ko yëgee su la lebee ngir soxla te nga mën ko lebal lebal ko te bu ci teg dara su tukkee ko ngay di ko ñaaga mu ñibbisi ak jàmm loo mën a suturaal ci loo ko mën a xawee yàlla la dàq xaw yi mm-hmm. nga bàyyi ko mm-hmm. jëru ko ñu ngi am nañ benn dërs boo xam ne bu yéeme la xaaj Abdoulaye Niass Mamoun ak man ñi rahmatullahi xaaj benn waay ci Koweït bu bari alal ku xiir ci lislaam ku nit ñi respecté bokk na ci benn association bu réussir ndax ñu am xaalis su ko souhaite am na benn journal boo xam ne day génne yu am solo génne nañ mi sax sama benn conférence ci ay série waaw waa ji bi ñu ñëwee bàyyi ñu ñuy dox soxla ba ci jumaa ji tukki mu sérieux ba sa bind na ñu ñëw kuñ gis rek ñu ne ah gis ngeen diw ñu de ndekk dafa dem Londres beneen daal ñëpp dañuy xaar avion ci ñun xawaaj ñëw ñu dem mu restaurant bi ñu waxtaan ñu ci bureau bureau macha allah mu rek soo kan mooy seen jiit ma ku ñuy wax Cheikh Ibrahim Niass man man man pour certaines expériences précédentes xam naa ne waa ji jëmul fu baax wax ko ma dem ma ne ko ñu di ko làqabale Cheikhul Islam mais ah man du ma ko nëbb man ba ma nekkee xale ba maa ngi dégg ay xam ak jihaatam ak ak di wax nga ne waaye su ne soppi xalaat ma gëstu soo mag xaj ma gis mu ne solo ma gëstu ma rek maamoon ma gis ma ne jot bi yàqu olof bàyyi leen bàyyi leen mag waay yéen am ngeen chance lu mel su dee na doon ma ne ko jiw mu ne ma ne ko buñ fi tuddagum kenn nii Cheikh Ibrahima nii parce que yow mbooloo mi ñii yaa leen mag ñii ñoo la mag yaa am waaye ñun ñoo fi ñëw yaa ngi jóge Londres te ñëw ko Afrique ba tey nañu waxtaan ba xam suñ paree nga gis ne dañoo yàqu nga ne yéen ku leen yàq boo jël ñun loo gis ne li nga foog ne baax nga ne ku leen defar may teen buñ ko fi tudd mu ne acca lan ngeen di woote man ne ko li ñuy woote de moom Cheikh Ibrahima moo ko jiite woo nit ku xamagul ne yàlla kenn la di jaamu këram wala ngay nga fonk croix ba gëm loolu ne laa ilaha illallah ma ne ko laajal ku la nekk kenn defu ci ci Afrique liñ ci def ñu ñuul ak ay tubaab sax ma ne ko woo jullit yi itam ci baab jullit dafa soxla daawa ba tëgg ko li yastamirra sayruhum ila allahi wa yasdaadu imanan ma imaani dama bu seen dox bi ñuy dox bañ a taxaw ci yàlla te seen gëm yokku ndax alxuraan nee na gëm day yokku sunna wax na waaw waaw mu ne ak lan ma ne ko Sénégal bëriwuñ sax ay xeet comme Congo ak Nigéria waaye nag am nañ ay xeet quand benn garab rek moom lañu këram nga mën a uuf mooy al uxuwatul islamiyya fraternité musulmane ñu def ko ci muy suñu bit boo xam ne lu ne def na bi fu ne ñu fàttali ko ne indi mu lu ne foofu moo mun boo ñëwoon foofu am na làkk yu bëri boo ko waxee ñu tontu te yàlla rek ñu boole waaw waaw ak lan ma ne ko bi ci tubaab yi laata ñëw ci Afrique amoon nañ ñu gisee àddina donc amoon nañ une certaine civilisation amoon nañ suñu moral te l'islam daf jege juróom-ñeent téeméeri at ma ne ko nag ñu indi seen civilisation bu uuteeg ak suñu roxo bos suñ daawa ku ko déglu daal doo mun a ñàkk laal dara ci yu bees yi ñu indi pour yàq na ñu ne du la gaañ waaw ne ko dañ gis ne l'islam ak langue arabe dañoo ànd te mu leen a tàggale ñu xam nañ ne même ku bëgg a firi nit ñi sax war ngaa goreel boobu langue bi ma ko buñ jàngee alquran rek teg ko ca ba man nii di wax ak yow nii nii nii fi mel nii ñu bëri seen jàng ci université yi yàlla boolee na ma ca ci nii wala naa waaye man nangumaa dem man maa ngi jàngi foofu waaw ah. ah. bon bon d' accord lu ngeen koy defee kii moom sonal nañu di ma ne ñu koy defee da mooy tàmbali tàmbalukaay ba ma ne ko jàngale ci ay géew comme Makka ak Medina ak Faas ak Dimashq ci commencement te gannaaw gi nag am na école yu ndaw am nañ ay maahis ñu am na sa projet ay université mais ci lii lañ ne ak la ma ne ko ak waare dañuy waare waare bi ñu daaw bi ngay dox ci waare la ne duñ toog ba nit ñi ñëw rek ku ñëw ñu waar ku ñëwul ñu fekkee la Cheikh Ibrahima nag moom day génn af day génn Sénégal ñu ngi ko jëf ma ne ko wasaay ñu ngi ko jëfandikoo ma ne ko bokk na ca ñu ñu waare noonu la ñuy conférence dañuy taalif tëb rek taalif wala ñu laaj da nga tontu danañ sax woy yëpp ci taaw bépp xew bu xew ci ñun ma ne ko danañ ci profiter pour soppi commune ba suñu may jabar buy njëbbali jabar bu nit faatoo même bu mbooloo mi dajee bay euh, bustaan mustarak pour sëriñ bi sax la ko ci jub la ci moom mooy buñ bés buñ paree mu waxtaan ak ñoom ci yàlla ko def nañ koy aayaat gàmmoog lu ne waaye lii kay moo tax sañ mbokk kay ngay dégg rek wóorut wàcc na Cheikh Abdoulaye di sor commencé muñ baax la mu ne waaye na gis nga loolu so ki ma malal moom mi ngi layal xat mu ne man nii ngeen di gis ci Kuwait ni ma son sonn ci diine am na noonu yoo xam dañ may tuumaal ba di ma tuumaal naan mu ne naan naan lu bon ma ne ko ah léegi nag ma na ko ma ne ko yow wax nga ne dañ lay tuuma ma ne ko xam nga lu ñu jàngal ñu daf ne waxuma tuuma buñ la bettoon nga ngay xelli ñu bàyyi la ba ngay naan ñu ne la ba nga gis ñu xam nga lu mu jàngal daf ne awala li ñu njëkk a def nañ jàpp ne yow kuñ nattu nga kuñ nattu kenn ko saaga nañ sant yàlla ni ñu nattoo lim la nattoo te itam wax ji jarta nett li ndax lu bon jarta nett li waaye ñu rosin kakaan de chekam kap kap kap kap kap dal fëgg benn chek da leen wóor ne di ngeen am succès su ngeen su ngeen sellalee man ko ngeen oote wuñ sellale <laughs> pour te dire pour hmm. bon amatu ñoom ñoo gën a soxla na ndaxte dañoo soxla lu ne te ñu ci bëri macha allah amuñu lu leen yóbbu fañ jëm bëri ay xabaar la rek jàpp rek ne macha allah mun nañ ci dellu benn bés ni daal mun naa jël ci hadis bi li nasiixa daal moom te def ko ngir yàlla kooku moom cosaan la ci diine hmm. jullit ñi bëri bëgg laay leen jubal leen dimbale leen ci luy tax ñu gën a moo xam muy àddina moo xam muy àllaaxira moo xam maam muy diine hmm. war nañ fonk ulamaawu lislaam parce que itam dafa am luy taxawe mën nañ ci déggee par exemple ne nasiihatu alxuraan mooy nga jéem koo xam jéem koo jëfandikoo waaye nag bu kenn wax ne mokkaluma alxuraan du ma kaan fóore déedéet loo ca mën rek yonent moo ne balligu anni walaw aayata bu le benn aaya sax boo ko communiqué baax na da ngay gëm ne lii mooy alxuraan moom te itam di laajte rek jàng jàng du wees surtout léegi te itam mm, boo demee ba ñuy werante lu ko jarul ci alxuraan ndax mën nañ koo ñaanale nit te kat waa ji maa ngi junjoon sànq lu ma tuddagul ma na yàlla wax loo ko nag waa ji ci doon waxam bi ñaar mu ne yonent nee na jàng leen alxuraan laaj ci yàlla balaa ñeneen ne ñëw di ko jàng di ci laaj ay nit ko daanu nga nag ko dañ koo jàng ñaan yàlla mu baal niw bi ci <laughs> <laughs> kuy wootee itam nekk aalim tout ça war nga am war nga am tey am sagesse euh, ndax ñu bari buñ baaxee dañuy yàpp ku ne surtout sax ku yàlla nattu te bàyyi nanguwul loolu yéen sax nangu bu reetaan ku yàlla nattu nee na ndax yàlla mun na koo jàmmal yow mun a tula ko ten dafa songu xalifa Mansour kenn ci wala waaw yi comme gars yi léegi rek di ko wax wala njàmbaar di buuri julli ci médina su mun a war a nga di ko bàyyi na ko hee déglu woon lu ma bonoon bonoon bon maa firaw na wax dëgg yàlla loolu ko yow loo baax baax Moussa la gën ak Haroun te kooku boo ko beleen yàlla yónnee ci firaw na moom dafa ne idhaba ila firaw na إنه صح فعلاج وطبخ الدور وقول له قولا لينا لا لعله يتذكر أو يخشى بلن كوي وقف وقف وقف نوي خلينا مفتل لكل فاتح بس كفاكت بيسمي وان أنا استبير ربكم فاترك فينك فاتل لكم أو يخشى ولا بوك موجو يتخ رجالي على سليون كوي وقف كون لك بل ما دف نوكم بي موسى دفكو فرعون واجي من ما سن فرعون موسى لندن يبدأ يكوي فاتح bëri dañ koy fàtte mm. waaye nag nit ci boppam la war a njëkkee mm. te itam booy wax loo xam-xam bàyyi xel li espace bi laaj ak li temps bi laaj mm. fekk ay nit ñoo xam ne ñu ngi fiis xamuñ ci nekk ah, nga ñëw di leen wax naan di leen naati laaj ah, du leen génne asaka xam kooku reetaan la <laughs> asalaamaaleykum بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح وصدق الله الحق هادي هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله